amma baadu fa salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo fi teew ci góor ak jigéen ak mag ak ndaw ak i jàngalekat ak i jàngkat di leen ndokkeel ci tawfiq ji leen sunu borom tabaraka wa taala defal ba ngeen tànn lenn ci seenu dund muy ay fan yoo xam ne fan yu xaw a limu la ci ni ko suñu mbokk suñu mbokk Abdul Ahad waxe ngeen beru ko fi béréb delluwaat nag ci jàngataat seen diine ña ca xamoon tuuti di fàttaliku ña ca jotul a xamit ñu xamal leen loolu day bokk na ci yi nga xam ne fan yu sànkuwut la te dund gi xat na xat goo xam ne doomu aadama képp koo xam ne yàlla may na la say fan di jàll te fekk sànkuwut jàpp naa ne loolu mooy li nga war a gën a mën a sante sa borom ndax yii sànk ak dund dafa bari te waxtu dafa doon loo xam ne su xasee dem duutu dellusiwaat li nga ci xas ñàkk rek jeex na moom dem na kon loolu lu mat sant sunu borom tabaraka wa la eh, jataay bii ak daje gi ngeen di daje fii bokk na ci yi nga xam ne suñ ko sañoon te suñ waxtu man koo mate ak sunub liggéey ak sunub teewaay su tàmbalee dañ koy fekke lépp lu fiy dox ñu koy déglu di ca jariñu ni ngeen ciy jariñoo suñ ca amee luñ ca mën a bokke ñu bokk ca loolu moo doon yéene ji waaye léeg-léeg waxtu wi mooy xat ba nga xam ne ñu koy yéenee day juyoo ak niñ koy bëggee waaye loolu lépp rek mu sant ci sunu borom tabaraka wa taala mbokk yi nag dañ ma sas comme ni ma ko gisee ci programme bi ngeen gisee ko noonu moo di ne naa ubbi waxtaan wi ci tomb boo xam ne ñoo ko tànnal seen bopp tudde ko al irhab al fikri su ko defee buñ ko ubbee ba àggal la ca des loolu mooy nekk jotaay buñ ubbi bi nga xam ne ay laaj la yuy jëm si ca waxtaankat ba lu mu ca xam tontu ko lu mu ca xamul jëriñoo ko dem gëstu jiwaat ko al irhab ci waxi wolof suñ ko dee fii kooku mooy ak xoqtal maanaam képp koo xam ne daf lay tiitloo daal di la xoqtal kooku mi ngi jëfandikoo li ñuy wax irhab ci sa kaw mooy li ñu naan terrorisme bi mu gën a siiwi suñ jamono jii nag mooy ko ñoo xam ne dañuy xoqatal nit ñi di tuur seeni deret ci lu dul dëgg waaye mbokk yi thème biñ tànn jëmul ci foofu daa jëm ci al irhab al fikri yi kooku su ma ko doon gàttal mooy xoqatal nit ki ba du mën a wax xalaatam xoqatal nit ki ba lam gëm mu doon xalaatam du ko mën a wax et diine lislaam dafa nekk diine joo xam ne dafa jóg ngir woo doom aadama waxuma ne wax ak jullit de waaye woo doom aadama ngir ak jokkoo am seenu diggante ak ubbikoonte ndax kenn ku nekk mën a jariñ sa moroom sunu sunu borom tabaraka wa taala di wax ne yaa ayuha nnaasu foofu yéen nit ñi la wax inna xalaqnaakum min dakarin wa untha wa jacalnaakum shucuuban wa qabaila li tacaarafu yéen doomu aadama yi nee na dama leen a bind ci aadama ak awa def leen ngeen nekk ay askan nekk ay giir lu tax ngir ngeen mën a xamante su ngeen xamante mën a dimbalante bokk dox jëm ci wenn yoon woo xam ne da ngeen faa war a ëpp ëpplante woowa mooy kenn ku nekk jéem a ragal yàlla su boobaa ngeen xam ne inna akramakum indallahi atqaakum ka gën ci yéen rek jaar leen ca lef moomee daal di rawante ku raw ci ragal yàlla yow yaa raw sun borom tabaraka wa taala bu ko neexoon ci coobareem lim mas a bind lépp lépp lépp ci doomu aadama mënoon nañoo yor wenn melokaan nga xam ne koo ci gis rek ni kii la du am dara du leen wutale bu fekkee ku xees la ñëpp àndandoo doon ñu xees bu dee ñu gudd ñëpp ànd doon ñu gudd bu fekkee bépp melokaan rek mën naa doon jenn jëmm ji nga xam ne bu ñu nee nit daal da ngay daal di xam nit na mel waaye xoola ba mu dalee bind ba léegi kenn gisagul ñaari nit ñoo xam ne ñoo bokkale lépp ak li yàlla masa a bind ni mu toll ba bind doomu aadama ba tey ku ñu la indil ku mën a doon rek boo xoolee ak ñu la ne dañoo nuroo nuroo nuroo boo xoolee foo gis ci kii loo xam ne doo ko gis ci keneen ka ca des ba dem ba ci baaraam yi nga xam ne moom lañ liggéey nga xam ne yow miy xool ak sa bët moom da nga naan kooku moom ñëpp a ko bokk le rëdd yi ci nekk waaye fekk rëdd yooyu nekkati bokkul moo tax ñu dem ba gëstu loolu sax ci wàllu xam-xamu jamono suñ bëggee identifier nit ki pour mën koo xam baaraamam la ñuy jëfandikoo ndax xam nañ rëdd ci nekk bokkule woo ko kenn kon borom bi tabaraka wa daf koo soob mbir yi mu warale ko kenn ku nekk mel na mu war a mel te lépp nag bu ànd doo doon loo xam ne lu yéeme la lu rafet la lu lu doy waar la loo xam ne kenn ku ci nekk am na lum la jox loo xam ne jox na ko kii jox ko kii jox ko kii buñ ne doomu aadama rek xel daal di dem ci koo xam ne noonu la mel mu boole yooyu yëpp su ko defee wuute googu nga xam ne moom la sunu borom tabaraka wa taala def ci bitti noonu la ko defit nag ci xel yi ak ci xol yi lu bare bare bari ci xalaatiin dañ koy wuute lu bari ci gis-gis ñu wuute ko lu bari ci yëg-yëg ñu wuute ko ñii dañoo naqari deret ñee neex deret ñii seen i gis-gis dafa sori ñii seen gis gàtt ñii dañoo mel ni noona la doomu aadama yi niñ mel ci bitti noona lañu waroo itam ca biir waaye loolu lépp nag ngir suñ jaxasoo kenn ku ne nga yëg ne am na lu manqué ci yow na la ko sa moroom jox kon lan mooy delloo gannaaw doomu aadama jooju mu xëy ne man damaa bëgg a nekk ci benn géew walla genn kër wala benn béréb boo xam ne ni ma mel daal ñépp noonu lañu war a mel ni may xalaate na ñépp xalaat loolu li ma gëm na ñépp gëm loolu waaye ku ko gëmatit sooy ba nga nëbb ko waaye fii moom doo ko fi mën a waxee doo ko fi mën a dunde kii gisee noonu wala muy jéem a doxe noonu kooku moo bëgg a freiner ni borom bi tabaraka wa taala binde doomu aadama te doomu aadama melut noonu moo tax li nga xam ne moom la borom bi tabaraka wa taala wàccee ci yonentam yi nga xam ne soo ko doon gàttal da nga naan lii dëgg dëgg alxaqiqa musta nekk loo xam ne dañuy wax ne lii benn boo xasee génne yonent ya ak li yàlla wàcc ci ñoom amatul leneen loo xam ne danga naan ñii alxaqiqa ñoo ko moom ku ànd ak ñoom ci lépp yaa jub ku dëng yaa yaa ku tàggoog ñoom yaa dëng loolu ñi ko amoon ñenn rek la mooy yonent yi ak ñi nga xam ne yar nañ leen ci loolu waaye loo fonk-fonk sa mbooloo loo fonk-fonk sa bopp loo fonk-fonk sa kër santal yàlla ndax yiw bu baree nga fa njub bu baree nga fa waaye xamal ne daraa nga fa itam nag ci njuumte saa boo gëmee ne nag amatoo dara ci njuumte ba aajo wooto jenn doom aadama xamal ne buntub xatal sa kër dikk na te buntub dund jafe-jafe day daal di ñëw kon ni ma ko waxee su fekkee dañoo bëgg a définir xamle taarif al irhab al fikri mooy al xaylulatu bayn al insan wa bayn al taabiri an rayihi al muxaalif li rayi al fardi aw al jamaa li nga xam ne moom la gëm te bokkaliwu ko ak yow moo xam yow nit kenn nit nga wala mbooloo nga nga ne ko loolu doo ko fi mën a waxe di ko tiitloo nag ca loola kooku la ñuy tudde al irhabul lan mooy jubluwaayam maanaam hadafam mooy iskaatul ashxaas wa ixraasuhum li yatasanna li hadihi al nashru afkaariha duna muaarada maanaam lam jublu dëgg dëgg dëgg daal mooy na ñëpp noppi te déglu ma rek ma tasaare li may tasaare dund li may dund ku dikk ànd ca loolu kenn du juyoo kenn du wóote loola mooy jubluwaayam ana lan mooy signes yi nga xam ne suñ ko gisee rek dañuy xam ne irhab yi mi ngi am li ñu tuddee al arad ndax feebarkat bu dalee nit dañuy wax ne arad ya maanaam signes ya mooy boo gisee kii daal mu xëy xëy yaram mi di tàng ñu def nàngam mu tàmbali loxo ba nga xam ne loolu moom siiñu siburu la léegi nag euh, terrorisme boobu nga xam ne dafa jëm ci wàllu tiital nit ki ci wàllu xalaatam lan mooy siiñ yoo xam ne soo ko gisee rek nga xam ne loolu mu ngi am yooyu jàppal benn saa boo gisee taxawu nit ne da nga koy sonal moo xam sonal googi sonalu wax la wala sonalub jëf la walla ak xatal la gu mën a doon ci kaw ne dafa juyoog man xalaat xamal ne kooku benn màndarga la ci ay màndargaam moo xam nit kooki kenn la wala mbooloo ki ko koy defit moo xam kenn la wala mbooloo ñaareel ba moo di tashwihu sumati almustahdaf wa taswiruhu fi surati almanbudi min almujtama ki nga xam ne moom lañ jubloo xeex moom lañ jubloo xoqtal ñaawal ab yàq ab deram yàq ab deram ba askan wépp fuñ ko seen rek ne ma gën a leen mooy ki nga xam ne nangam ak nangam ak nangam ak jëfandikoo nag bépp moyen boo xam ne mën naa yàq loola moo xam garam place yàlla waxtaanukaay yaag média baag lépp loo xam ne buñ ko jëfandikoo deru koo ko yàqu danañ ko jëfandikoo ngir yàq loolu pour xoqatal googu ñu koy xoqatal mooy na ne cell nëbb ay xalaatam bokk na ci araad yooyu moo di kooku su fekkee ne mën nañ koo neexal ba noppiloo ko kooku danañ ko neexal noppiloo ko wëlbati ko soppi ko mu doon am seko moo xam ne day wax rek lañ koy wax loo suñ waxee dara mu roy yem ca loola bañ a jëfandikoo ci dara luy nuroo xalaat boo xam ne day tukkee fa moom waaye day su fekkee jéemees na loola mu të kooku am na ay paqueti tuuma yuñ defar ba teg ko nga xam ne su noppee moom lañuy ñuy daal di teg ci kawam kii kat dafay teewal ay mbooloo walla dafay teewal ay réew yoo xam ne dañ koy jox alal ngir mu ñëw tas réew mi ngir mu yàq deru doomu aadama yi ngir mu def nangam yàq seeni i pas-pas tàqale leen seen tuuma yoo xam ne dañ ko préparé ba mu jekk su nangoo daal mën naa daal yi bokk ci mbooloo mi tey doon ko baax koo xam ne ñëpp dañ koy tagg waaye genn kàddoom rek su jooyoog niñ ko bëggee bu ñu xëyee paquet yi tuuma yooyu ñu yan ko ci ba mu diis gan kon kooku ci araad yi la bokk bokk na ci yi nga xam ne ñoo koy wane bépp société boo xam ne al irhabul fikri yi daf faa bari wala mu am fa mbooloo ma mën nañuy daje di waxtaan seeni waxtaan yi ñuy déeyante yoo xam ne dalay wóor ne lee ñuy déeyante ànduñu ci li ñuy gis ci kaw waaye ñemewuñ koo biral saa boo xam ne biral nañ ko rek day daal di jàpp ne jéggi nañ ay ligne rouge yoo xam ne mën na leen a indil jafe-jafe moo tax la leen naqari lépp dañuy wéet di ko waxtaane ca suuf waaye suñ dikkee ca kaw leneen lañuy ñuy wane lu bokkut ak loolu bokk na ci yooyu yit mooy jëfandikoo euh, ay ngir ak ay xalaat ak ay yëf yoo xam ne nit ki xalaatam sax mën naa bañ a nekk ca loola ñu xëy ne diw sàngam nangam mooy xalaatam diw sàngam ci nàngam la jëm léeg-léeg ñu askane la loo xam ne sax yow mi nga xam ne dañ lay xoqatal ci wàllu xalaat loo xam ne yow sa xel sax nekkul woon ca loola ñu ne la yow yaa ko wax wala yaa ko def loolu lépp ci biir société boo xam ne irhab fikir yi moo fa nekk loolu lu mel noonu la ñuy dund résultat yi mu jur nag lan la résultat yi muy jur maanaam nataa ay jëm moo di ba ca jëkk ghiyaabu xorriya al xorriya al fikriya liberté bi nga xam ne doomu aadama da ko war a am ci xalaat liberté boobu moom dañ koy daal ñàkk soo xamee ne terrorisme boobu dafa tasaaroo ci askan wi ñaareel ba mooy riyaab al ibdaa al fikri doomu aadama yi suñ ko bàyyee mu libre xalaat gëstu ci wàllu xam-xam gëstu ci wàllu lépp loo xam ne luy jëriñ doomu aadama la ci wàllu social ci wàllu diine ci wàllu leneen mën naa dem ba indi yoo xam ne doomu aadama yépp a koy jariñoo waaye kat ki doon ndaw toll ci xalaat gëstu jàng ba war a mën a libre pour jëriñ askan wi ñi xëy ne ko yow kat la nga xam bul ko jëfandikoo fii kon kooka xañ nañ ko li ñu tuddee al ibdaaul fikri muy innovation bi nga xam ne waroon na koo indi waaye waroon na caa mën a jëriñ askanam itam lu ci bari day manqué ñetteel ba moo di nuzuurul musaqafina ila ramziyati wa nawin min as-sulukiyat al-batiniya ñi nga xam ne ñoo ñooy borom culture yi ci société bi mel noonu li muy jur su fekkee ne irhab fikri dafa am muy xoqatal leen ba mënuñoo xalaat mooy seeni mbir day mujj dara duutu ci leer juñ ji rek lañuy def waaye duutuñu wax wax joo xam ne juñ xam la ñaareel ba seeni mbir fis bañ xam lii lu mu doon day daal di jafe su ko defee loolu la muy indi mooy lu ñuy def lu nekk ci secret lay doon te kooku musiba la nag maanaam nga xam ne nit ka lam gëm la muy dund mënu koo feeñal parce que liibarul pour def ko loolu état war na koo dégg keneen war na koo dégg la muy jur ci askan mooy nit ña dugg ca seeni ruq tëral seen bopp seen tëri yoo xam ne bis bu génnee mën naa doon lu am njariñ waaye mën naa doon itam loo xam ne luy lor la moo tax nit ki lu gën ci moom mooy ñu bàyyi ko mu génn feeñ danañ ci ñëw ci solution yi léegi eh, bokk na ci eh, résultat yi muy jur mooy li ma junjoon léegi ci araad yi moo di izhaaru anwaain min al muwaafaqati al muzayafa wane ci kaw ne yow li ngay gis kat ànd nga ci waaye fekk ne li ëpp ca nit ña yubtinuuna al xiqd la ñuy nëbb mooy ñàkk a d'accord ci loolu ak bañ ko loolu mais amuñu pexe eh, bokk na ci la muy jur moo di lenn ci ñi nga xam ne dëgëruñ lenn ci ñi nga xam ne dëgëruñ te xoqtal leen dañuy mujj dellu gannaaw dellu gannaaw googu benn ngir garder seen der mu bañ a yàqu parce que nekk ci askan ñépp ne kooka yàqu na lu bon lu nekk ñu sànni ko ci deram mu ne ah waaw man te naa dellu gannaaw ndax lii kët moom attane satu ko foo jaar fu ne rekk ñu ne nàngam ak nangam ak nangam kon dana jur loolu benn garde deram boobu moo tax wala firaaran min al uzla ber giñ ko ber fi biir te daa bëgg a bokk ci biir mbooloo mi mu ne ah, xaaral daal ma far ñëw rek bokk ci coggal gi benn yoon daal di dellusiwaat gannaaw su ko defee ñëw bokk si ndax loolu lu bari ci doomu aadama yi e, seenu dëgër dafa àggul ci mën a nekk kenn jaamaarloo ak mbooloo su ma nee mbooloo mi ngi tàmbalee ci kër ga nit ka dëkk xëy ñam fay yeewool ñëpp mu yëg ne moom day mi ngi yanu xalaat yoo xam ne waa kër gi yoruñu xalaat yooyu te su ko waxee waa kër gi dégg ko kooku mën naa indi jafe-jafe dem na ba ca béréb ba ngay liggéeyee dem na ba ca dëkk ba nga dëkk kon fom mu fa mën a doon beru boobu doon na loo xam ne du ñépp bindoo mën a dëgër ci principe maanaam la nga gëm ba baa di ya gëm nga mën koo dund mën koo jàng mën caa nekk xam itam noo koy dunde ba doo loru doo lor kenn eh, loolu doon na loo xam ne mën na ñàkk koo xam ak ñàkk xam foo koy jaare ak ñàkk dëgër boobu ci liy waral dellu gannaaw bi ci la bokk kon loolu ci li muy jur la bokk am na beneen bu muy jur moo di société boo xam ne irhab fikri moo fa nekk mooy xoqatal nit ñi ba ñemewuñoo dund lañ gëm ñemewuñ koo wax day tax ña nekk te doon ñuñ ormal nga xam ne seen kàddu la ñuy teel moo tax ñuy def loolu ñuy def seen kàddu lañuy ñuy sàmmoonteel ndax wolof yi dañuy wax ne kat euh, mépp pénc moo xam ne dëgg dafa réer suba ba ngoon mépp xam ne dëgg dafa suba ba ngoon ñi di ko wër xamal ne benn kilifaa ca teg tànkam wala kuñ ragal noonu la ko wolof yi wax benn kilifa la caa teg tànkam wala kuñ ragal kilifa googu nag nga xam ne lim tàmm dégg moom mooy lu mu wax rek ñu ne ko noonu la bu yàggee lam koy jural mooy duutu mën a dégg leneen su ko defee ñu naan ko noonu la noonu la dañu mujj ànd ak moom bu ànd dugal ko ci njaaxum wala ñu ànd ak moom dugg ci njaaxum faf kon kooku ci loolu jur ci la bokk moo tax moom itam mu mata wattandiku la ba tax na képp ku doon wax sax même bu doon na ngaa wax loo xam ne laaye biir nga ci jublu ak jubbanti ak baaxal la ñuy jëkk wax mooy ab noonu la lu ko waral mooy tàmm dégg kuy wax lu jooyoo ak li nga xam ne Eh, noonu la mbir yi tëdde saafara si moom lay daaneele xam nga lii ay junj rek la moo di al binya taxtiya bi nga xam ne al irhabul fikri moom la am maanaam fañ ko lal tabax ko fa su fekkee bëgg nañ koo saafara foofa la ñuy lalli maanaam bu doon daal dañ koo tegaloon plan boo xam ne dër bañ ta teg eh, tabax ya dër booba la ñuy dajj luy loola moo di yi ñuy nës-nësal naan ci lii la gëmut gëmut loola ci lii lay woote wootiwut ci lii ñi toog waxtaan jaamaarloo ba xam kii liñ naan moo koy wax moo ko wax wala déet yàlla xam ne léeg-léeg nga dem fi béréb dégg ñuy wax yoo xam ne yow da ngay tiit julli naa fii ci ci ci jumaa ji yàggul dara ànd ak suñu as jaxate ñu julli ci jumaa ji ba sëlmal ma dend ak jëmm joo xam ne ku ma xamanteel bu yàgg yàgg yàgg la yàlla dogal mu yor place ci foofu ci lu war jumaa ji mu ne ah yow kon da nga fi jullee ah, mu ne dégg naa yow kat yaay joxe fatwa ji kenn du fa julli ndax ay béréb ay xabru daf ne ah loolu de ci yow laa ko déggee ndax da koo gis ci ab son nga déglu ko ma di ko wax wala dangaa gis ma bind ko mu ne ah dama koo dégg ma ne ko ma li dama koo dégg kon yu mel noonu <coughs> dafa doon loo xam ne di ko nës nësal muy dem moo dul yoon dégg nga ne diw sàngam nangam ak nangam ak nangam lay wax te yow loo déggee ko ci moom gisoo ko xam nga ko xam nga fu mu dëkk mën ngaa gisee moom waaxul ba ci moom nga ne ko waaw li may dégg moom noonu demee wala sax wooteel am ndaje moo xam ne bu ko jaree ne mboolem ñu ñuy joxañ ñoom laa bëgg ñu teew tey mboo ñoog mboolem ñi leen di joxañ suñ bokkee toog ñu ne kaay leen nu xool tomb yi nga xam ne moo waral joxañ gi loola lu mu doon ak fu mu jógee nu mu demee ndax li ñuy wax dëgg la wala du dëgg jàpp naa ne aw askan wuy wut lu baax te wut a jubbanti suñ bokkee toog ñoom ñépp tiim tomb yooyu nga xam ne moom lañ tudde ay joxañ waxtaane ko ba mu jeex suñ fa jógee kenn ku ne danga nga xam la nga doon séentu ci sa moroom mu fan la toll su loolu amul nag seytaane day continuer rek nës-nës jooju nekk fii ah moom de nee na moom de nangam la bëgg moom de su ngeen watul dana def nangam su ko defee loolu day yokk di dem rek kon saafara sa mooy lalli dër ba nit ñi bokk toog waxtaan déggoo mooy tomb ba ci jëkk beneen ba ci moo di ittixaadu mustacharina min ahli sidqi wa nasiha kilifa yi bu ñuy wut ñu ñuy diisuul nañ seet nit ñu nit ñu jub nit ñoo xam ne dëgg leen tax a jub ñoo xam ne wutuñu jasaan wala shukuran dañuy wut ku ñuy laabiir dañ lay laabiir li wajhillah kese ñu mel noonu ku leen wut ñi doon ñësës ci yow te ngay kilifa duñ la yàqal kon kooku ci tombi saafara yi ci la bokk ñetteel bi mooy ixyaau mabda'i fatabayyanu lépp loo xam ne ñëw nañ wax la ko ne la am na ci kuréel sàngam wala diw sàngam wax na ko wala ku mel noonu muy kuñ xam-xam fu mu dëkk xam nangam defal tabaj bi wóor likul ba xam li ñuy wax loolu dëgg la wala déet beneen bi ci des nag mooy iskaatu aswaatil mutamalliqin ñi nga xam ne sibooru mooy seenub liggéey ñi noppiloo leen parce que am na ñoo xam ne ci sibooru lañ jàpp ne ci lañ mën a dund suñ ko defal duñ dund mooy topp ci nit rek di ko jay di wax wax joo xam ne gëmoo ca dara dara dara ndax kat si boorukat yooyu lu ñu bari bari bari nag téewut mënuñoo jeexal ne askan wi faw am ay nit ñu fi nekk doon ay ndaw doon jàngkat doon ay gëstukat doon ay nit ñu yiw doon borom it tiraanga yoo xam ne suñu borom tabaraka wa taala moo def ci ñoom ful la def ci ñoom jom foowu am ñu fi nekk ñoo xam ne gis bu leer lañu yor boo xam ne kenn mënta xëy xëy ci benn bi mukk fay ko buur ba dañuy wax ne dafay baaxoo lum def lu ne rek mboolem askan wi ñi àndandoo ne kii amul morom lim def tey kenn musta gis lu baaxee noonu loolu la loolu la dëkkee ak nit ñi am benn bi bis mu wax ak ki koy ñawal ne ko man de damaa bëgg a génn ci mbooloo mi te bëgg a génn nag melokaan woo xam ne daal mooy gën a rafet yi ma daan sol yépp ñawkat ba ne ko sa yaramu neen de wóor na ma ne moo gën a rafet li ngay sol yépp mu xëy rek ñu defar mu dugg ci la muy dugg génn ne cëpp def yaramu neen askan wi tàmbali ah lii rafet na di yéemu ñépp di yéemu comme nañ ko daan yéemoo am gone gu tuuti ku fa nekk mu jóg taxaw ne yée buur ba yaramu neen la def noonu laa ko waxe ndax noonu laa ko mën a suturaale waaye la mu wax a gën a gën rëy loola bi mu waxee loolu ñu bëgg ko noppalu mu ko noppiloo mu continuer di ko wax yeneen gone yu ndaw yi àndandoo ca di ko wax ñu ne buur ba yaramu neen la def buur ba yaramu neen la def kon ñi nga xam ne dañuy xool te ànd ak li ñu tuddee al bara al asliya yor seen fitra lañu gis mu jub danañ xam ne jub na suñ ko waxee ak suñ ko waxul kon bu la bu mu la nax mukk ay nit ñoo xam ne dañ la wër ñoo xam ne lañ jublu mooy yàqal la ndax lu nekk ñu ne baax na lu ne ñu ne baax na lépp loo def ñu fekk la ca ne baax na kooku jubbantiwut du defar yow mi di jàngalekat wattandikul loolu yow may imaam wattandikul loola yow mi nga xam ne dangaa ngaa jiite dara ci daawa bi wattandikul loola yow mi jiite mbooloo ci lislaam ak fu mbooloo ma mën a nekk nuñ tudd wattandikul lu mel noonu soxla nga ñu ñor ñu ñuy diisool ñoo xam ne léeg-léeg nga toog fi biirab wax ba àggal génn ñu ne laa tey kat li nga wax mënoon ngaa waxee ne ni lu dul loolu lii may wax it su fekkee lu mel noonu ngi ci maa ngi koy séentu ci suñ génnee am ko ne ma tey kat la nga wax moom jàpp nañ ne ay toj tojo nga ca su baaxee it alhamdulilah ñu bàyyi noonu rek kon defe naa ne loolu muqaddima la boo xam ne dañ ko doon jiital di ñaan sunu borom tabaraka wa taala mu defal ñu tawfiq te fay leen tuyaaba ci liggéey bi nga xam ne yéen a ngi ci nekk di góorgóorlu rek te it mu doon loo xam ne lu ñuy séentu ci ci ndaw ñi la rawatina ay ndaw rek ñoo fi nekk parce que it diine ji moom jàng ak jàngale mooy cosaan li moo ko yor eh, ngeen def muy xeetu dawra bii di am fii bokk na ci yi gën a am njariñ ci yoo xam ne ñu ngi koy def ci réew mi tey ndax yu bari ci ndaje yoo xam ne dañuy daje rek waxtaan rek ay thème nii daal di dem loolu mën naa bañ a sax waaye nag toog di jàng nag yor ay téere di jàngalente wala jël ak fànn wala nga jëlub thème ñu di ca jàngalente di xëy di gont comme nañ koy defee ca daara ya loolu daal jàpp naa ne yoon wu tegu ci yoon la di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu defal leen ci tawfiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi ajmain